la République ak euh, jafe-jafe yi ko doon miine dans le passé léegi dama bëgg ñu teg suñu bët ci xëy na ëllëgam ndax euh, président Sall dafa dël benn euh, lu am solo teg ko jéego jëm ci li ñu jëm muy la présidentielle 2024 bi mu ne du bokk te ñu bëri bëggoon mu bokk ci seen parti yéen déjà. Mm-hmm. bëggoon naa xam un yow naka nga accueillir annonce boobu noonu bi mu ko defee. bi mu ko waxee bett ma parce pour bokk ko xam président Macky Sall dama wax ni bi mu waxee ni damay réduire sama mandat conseil constitutionnel li ko mënta nekk dama ni man mi amoon chance daan ko gis buy tukki xamoon naa ne semaine boobu yëpp baalu ko ëpp nekku ndax amoon lu ko naqadi ñi doon wax nag naan président day am troisième mandat day def kër Mm-hmm. mu yeewu suba teel parce que depuis 2019 dañ ko doon jéem a divertir. depuis lendemain présidentiel ba tey. mais malheureusement ils n'ont pas réussi. Mm-hmm. parce que projet TER BRT yeneen ak yeneen yeneen def na ko léegi nag nee na nekkatul candidat mais li mu war a sauvegarder moom mooy liggéey ji mu def mu fexe ba am loxo yu wóor ci dugub ba teg yu dal xel. Mm-hmm. man nag en ce qui me ànd ga ma ànd ak moom àndoon ak moom 2011 dara changé wu ci. tey laa gën a am confiance ci moom te xam naa ni ku mu tànn bu gañee bu la jàppalee xelal la réew mi dina développé